salaamaaleykum mbokk yi comme ñi nga xam ne comprendre ñu daal di leen di fas yéene traduire li Ousmane Sonko bind ci page Facebook am balay boobu mel na ne rek li Cheikh Bara Ndiaye doon wax ne moom moo ne ko day xeex pour cinquante ans pour cinquante ans yii di ñëw gars yi nag pour cinq yi la ñuy xeex mel na ne loolu confirmer na ko ci jeexantalu lettre bi. li moo commencé rek mooy nuyu waa réew mi nuyu waa bitim réew mooy sénégalais yi nekk foofu. nuy ñi nga xam ne ay militant lañ ak ay sympathisant teg ci ne seeni kàddu maanaam seeni jàppale ci seeni kàddu ak seeni taxawaay ak seeni ñaan mu ne yooyu yépp euh, mi ngi ñëw ci moom mi ngi koy yëg tous les jours mu ne moo ngi leen di gërëm gërëm bu amul yam mu ne moo ngi sant yàlla bu baax di woo ñëpp ci tay ak lu passé tey di woo ñëpp rek ñu am engagement détermination ak solidarité di jàppalante pour rek jàkkaarloog dictature bi fi nekk nga xam ne li ko fi dese mëtul sax cinq mois. mu ne maa ngi leen di fàttali droit biñ am ci bañ ak nooteel résister suñu la bëggee jaay doole nga bañ te nga xam ne dafa nekk ci suñu constitution. mu ne Kantar moom nag mënul lu dul jël lim am ci moyen li ko situation actuelle may maanaam mu mën koo def mu def ko. ci wàllu résistance mu ne nag loolu moo tax mu décidé daal di ci delluwaat rek ca grève de la faim bi bi mu nekkoon. mu ne lu tax muy delluwaat ci grève de la faim bi mooy jàppale wane solidarité am ak euh, mbokki patriote yu jigéen yi nga xam ne ña nga nekk fële ca camp ñu arrêté leen xam nga ñoom dañoo nekk ci ab grève de la faim lu mat neuf jours a ngi nii wala dix mu ne ngir jàppalante ak ñooñu moo tax moom. Euh, mu daal di def grève de la fin moom tamit sunu sœur yi nga xam ne dañ leen a jàpp ci insistement arrêté maam dañ leen a arrêté ci lu dul yoon pour rek dañoo wane seeni opinion euh, politique wane wax seeni xalaat wax seeni xalaat kese moo tax ñu daal di leen di jàpp ci wàllu politique. mu nag ñooñu moo xam ñi nekk ci liberté 6 la ñu jàpp leen. téye leen fële ca camp bi nekk Liberté 6 wala ñi nekk ci yeneen yeneen prison yi. mais sunu sœur yooyu nga xam ne ñenn ñi dañ leen a xañ ñu am benn contact ak seeni mbokk maanaam seeni mbokk amuñu contact ak ñoom duñ leen gis buñ leen buñ fa bëggee dem gis leen duñ leen gis buñ leen bëggee yet lekk wala yëre wala benn contact daal amuñu benn contact ak seen famille. Mhm. loolu ba tax sunu sœur yooyu daal di jël seen droit légitime pour def seen grève de la fin ñoom tamit mais ñaareelu motif bi tax muy grève de la faim mooy jàpp gi ñu ko jàpp te teguwul fenn waaye jàpp gi ñu ko jàpp ngir rek xañ ko mu bokk ci ay élection ak jàpp gi ñu jàpp ay nitam muy patriote yi. mu ne loolu daal moo tax muy grève de la faim di sàkku ci loolu mu dakk mu teg ci di ñaan euh, waa réew mi ak waa bitim réew ak militants yi ak sympathisants yëpp mu leen di woo ci ñu gën a continuer sax ci la nekkoon continuer ci combat bi. ànd ak suñu détermination sax ci dàkk. mu confirmer li Cheikh Bara Ndiaye waxoon na Ousmane Sonko ko ko wax moom la tëjee mu ne ñoom dañuy xeex pour cinq mois yi ñuy jëm. cinq cinq mois yi waaw pour jël réew mi xam nga fii ak élection yi mu ne ñun nag mu ne ñun nag dañuy xeex ngir cinquante ans yi di ñëw ñoom juróomi weer yi di ñëw ñun cinquante ans yi di ñëw.